faut de dire dëkk nañ ci mbalit mi donc même mbëbës fi mu ne war nañu xalaat fan la jëm loolu moo ma gën a préoccupé que ñu génn ci mbedd yi c'est une très bonne chose mais xeebal naa ko président Diomaye xeebal naa ko premier ministre Ousmane Sonko. maa ngi ñëw ci yow am na ku nekk ci téléphone bi asalaamaaleykum. dem na mën na woote waat 88 628 14 13 yaa ngi doon wax lu. comprendre nga mhm. foofu laay waxee. mais déguerpissement yi aussi am na parce loolu yëpp c'est un processus xam nga. boo tolloo ci war a déguerpir mhm. day fekk ngay dox ba toll ci mhm. war a déguerpir munoo xëy rek ñëw ne cëpp nit ñi ne jóge leen fii après lan nga fay def parce que pas créer des vides parce que yooyu mooy créer ay frustration mais vide yooyu en général ay passage piéton lay doon oui je sais mais tey jii gis nga le langage est là gis nga li ñuy wax nii pour du pour politique tous les leviers sont au Sénégal ambulants yi pour envenir venir à ce que à ça parce que loolu ngay junj nii. Mhm. demal nga wax leen ne leen sénégalais yëpp benn baat xam nañ ko mooy borom bitiku mbagg boo ubbi xolam. magasin moo nekk ca biir waaw. borom cantine boo ubbi magasin nga ci fekk. Mhm. donc il faut que nga proposer de moderniser le commerce sénégalais. fexe ba créer ay centres commerciaux yoo xam ne ñii nga xam ne ñoo nekk en priorité ci yenn zones yi occupé ko depuis dix quinze ans ñooñu nga fay reloger ji ak ñi nga xam ne ñooy taxaw ci seen kanam ak seen i ginnaaw mais nag day ànd ak accompagnement état ñii dañuy am ay moyens dañuy fay ñii amuñu moyen DER moo leen di financer ñuy fay DER nit ñi génn ci mbedd mi dugg ci ay cantines mais jóg fi rek du solution. nga baal ma ma jël ki nekk ci téléphone bi euh, balaa ñuy continuer asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. mu ngi lay delloo nuyu El maa ngi lay ziar bu baax noo tudd ak fooy woote maa ngi tudd El Hadj daam Ndaw. Euh, El Hadj Dame ñu ngi lay ziar. di prince de Sage. ah <laughs> El Hadj Dame. notre maa ngi lay ziar bu baax a baax. <laughs> El Hadj da am loo bëggoon a euh, bokk ci waxtaan wi. bu baax a baax a baax maa ngi jaar sama xarit bi Thierno Mouride bu baax a baax. jaare naa la sang bu tedd bi. Euh, di ziare honorable député aussi. Baara jërëjëf sëñ Baara maa lay ziar bu baax baax. ak seen ñaari invité yi jël naa ziar bi mhm. jërëjëf. di rafetlu concept d'émission bi. Mhm. di wax ne ñu ngi koy seetaan bu baax di ko teewlu. Mhm. ni ñu ko tuddee di leerlu. mooy ñun sénégalais ñoo soxla ñu ñu leeral. di sàkku bépp. autorité mën na bépp sénégalais bu toog ci seen plateau foofu. Mhm. war a xam ne les sénégalais ont besoin leeral bii nii muy leerlu. Mhm. di ñaan lépp lu fa sénégalais yi di wax ngeen koy def rek yàlla na sénégalais yi am déggin bu positif. amiin yaa rabbi. loolu ñu ngi koy sàkk ñu ngi lay rafet lu bu baax a baax a baax ci émission bi. merci beaucoup El Hadj. di gërëm El euh, Hadj Ndiaye bu baax. Mhm. di wax ne lii ngeen jot a def lu rafet la sénégalais yi lii lañ soxla. point par point ngeen kettoo point bu ngeen teg rek sénégalais bi gis na ci boppam am na lu ñu ci xalaat. jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal. ñu lay sant bu baax di la gërëm di merci beaucoup yéen tamit mën ngeen def comme Alaaji Dam euh, qui fait partie de la famille A. Euh, au 88 628 14 13 Ceddo. donc li ma doon wax rek Pape mooy nañu continuer cleaning day bi parce que euh, nuñ ko tuddee sax léegi set setal. parce que action citoyenne la xam nga man li d'accord naa ñuy jéem loo xam ne à chaque fois bu ñu koy def on implique tous les citoyens parce que culture citoyenne ak citoyenneté lu manqué Sénégal la mhm. lu fi créer ay dégâts yu bari la ñàkk gi nit ñi ñàkk xam citoyen nan la war a doxee ci réew mi ak lan la war a taxawee mais le chef d'État ci li ma jàpp ne moom la war xalaat ci dëkk bu mel ni dakaar nga xam ne par exemple c'est la capitale du Sénégal mooy fexe ba dëkk bi am verdure verte jardin yi am na ci jardin yoo xam ne maar day taali mais culture ñuy gis lu verte ñu ñu dem ba tàggoo ak gis suuf maanaam nga toog bëgg gis suuf Dakar mu tëla ce pari là parce que bu dee ay tali je pense que le président Macky Sall a fait le nécessaire bu dee autopont je pense que le président a fait le nécessaire donc BRT bi am na beneen unité bu ñu war a ubbiwaat yooyu yëpp dans la dans le cadre de la continuité l' de l'État je suis tout à fait d'accord je félicite l'ancien régime et je souhaite que la continuité soit positive dans mmh. ce domaine-là mais Dakar war nañu xalaat nan la ñuy def ak sunu mbalit yi te il y a des pays je veux pas dire un pays de la Scandinavie je peux pas citer directement Norvège ma juum mais am nañu ay unités yoo xam ne à partir des déchets ils arrivent à produire 30 pour cent de l'énergie qu'ils consomment mmh. parce que Pape Sidi dañu ne nous sommes à l'ère de la transition énergétique bari na loo xam ne l'énergie de renouvelable ay concept la yu bees yoo xam ne. Mhm. état bi mën na ci surfer. Mhm. am ay financement yu baax. ñëw ci réew mi créer fi ay unités yoo xam ne non seulement dina créer ay emploi mais dina régler la parce que Sénégal dama lay wax dara gis nga buñ ci jógul dinañu xëy ñun ñëpp kenn ku ne taxaw di xool mbalit mii nii nag léegi nan lañ ko war a def. Mhm. parce que fait un tourant ba Mbëbës. gis nga ni mu demee. donc yooyu yëpp. dañ ko war a xalaat borom camion yeeg concessionnaire di. casse pour les entreprises yi nga xam ne ñoom la. j'ai quelqu'un baal ma jël ko baal ma. Euh, Seydina Aliou su ma pare ma ñëw ci yow ñu close euh, close chapitre bi door jàll ci euh, point beneen bi allo oui bonsoir. bonsoir. vous allez bien. nous allons bien et vous. Merci beaucoup. Je voulais à l'émission, s'il vous plaît. Allez-y, on n'écoute que vous. Vous êtes en direct, oh. monsieur. C'est en français. Je suis professeur d'université. Euh, vous êtes professeur d'université. Est-ce que vous pouvez vous exprimer oh. en Parce que l'air, nous l'avons l'air. Wow, d'accord. vous félicite par rapport à la qualité de l'émission. Mais je suis un peu surpris par votre économiste, là, monsieur Ndiaye. Wow. Tout à l'heure, quand il disait ce qui l'oripiné, a voilà, c'est une excellente émission que vous faites, mais si vous invitez des, des économistes de ce genre, je pense que le débat devrait être très élevé. Mhm. Comment un peut dire que dañoo war a euh, def ay mayonnaise par rapport à ça je pense trop dire aujourd'hui mhm. je donne un seul exemple un directeur général ou bien un, un inspecteur des impôts pourrait faire cette faute-là, nous balco, mais un enfant, un jeune de 18-19 ans qui fait des erreurs de ce genre, il faut sanctionner. Mhm. Il n'y a aucune façon de dire qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'économiste, euh, c'est des trucs de mayonnaise, de nous glorifier, de nous amplifier. Non. Mmh. Pour avoir un pays qui se développe, il faut sévir, il faut sévir, il faut sévir. Ces enfants, ils ont fauté. Ah, amul sax euh, bu may dégg euh, kilifa googu le Mbacké Mbacké laa naan ay session d'octobre c'est-à-dire il y a des sanctions qui faillent et euh, pour terminer aujourd'hui pour que l'élite sénégalaise soit au sur au vu de tout le monde il va falloir que boo leen invité ay nit ñuy wax objectivement, pas mmh. subjectivement, je suis sincèrement désolé, mais je ne partage pas l'avis de, de, cet en tant que professeur d'université, en tant que président du jury. Xale bu def faute a sanctionner de la façon la plus sévère. Je vous remercie. Salam alaikum. professeur. C'est ça. Dans cette émission, il y a de la démocratie. Tant que l'avis de l'autre est dit dans le respect, on le prend avec philosophie et démocratie. Euh, peut-être d'accordul ak yow amul bokkul ak yow gis-gis. ci point boobu je je le conçois très bien. voilà et puis man ba may ñëw si émission bi peut-être que. Euh, bon bref duñu egg ci yenn présentation et tout ça mais ñun aussi euh, on a aucun titre usurpé et puis émission bi c'est un peu format wax sa xalaat donc mmh. j'avais pas compris mmh, émission bi que dañuy def wax sa xalaat sujet par sujet et cetera mmh. donc moom li mu war a comprendre c'est en fait de le ramadan attendez laissez-moi lui répondre parce que je veux lui répondre même en français s'il veut attendez c'est faut mu comprendre ne ñun je me positionne pas comme un donneur de leçons ce que je dis mooy euh, vous savez moi je suis un man je ne suis pas dans les détails man bu ma jógee sama kër ñëw fii c'est pour waxtaan lu am njëriñ borom kër man mënumaa toppatoo ay xorom beeg poobar beeg eh, eh, soble bi manqué nag affaire yi man je ne m'occupe pas des détails je trouve pour un pays qui a mille six cent milliards de budget un pays boo xam ne on a une une dette de onze mille milliards un pays où on a plus de mille jeunes qui qui qui crèvent dans les bas-fonds de l'océan que ñu am un excès de zèle sur benn centre d'examen de baccalauréat à Kaolack benn 64 pour man loolu c'est pas quelque chose boo xam ne c'est digne d'un débat de très haut niveau boo xam ne moom en tant que professeur d'université mun naa ko léegi nag il faut que nit ñi dans dans ce Sénégal là bi ñu nekk. il faut que les gens apprennent à être tolérants. Mm et puis bañ a nit ci mbubbam. moom li mu jàpp. noonu ne il faut sanctionner man li ma wax c'est très clair je, je suis quelqu'un de nuancé nag sama nuance mooy bu nekkee ne euh, parce que def nañu bac moi j'ai fait le bac j'ai passé le bac en 2006 et je faisais partie des dix premiers bacheliers du Sénégal en donc xam naa la mooy bac donc boo defee bac euh, ñu ne nangam ak nangam ak nangam boo ko defut yoon mën naa dal sa kaw maintenant j'ai même voulu euh, prendre les choses par le o pour expliquer en 1978 et cetera y avait a un célèbre arrêt qui s'appelle l'arrêt où Émile Wardini Senghor dafa dàqoon ay étudiants yu defoon grève sans passer par le conseil de discipline donc damay wane loolu après ñu étudiants yooyu eh, conseil de discipline bi mu deful loolu remettre la leen université parce que dàq université étudiant da koy causer un tort préjudiciable ad vitam aeternam à l'époque donc man foofu lay waxee ne xale yi suñuy rakk lañ suñuy doom lañ peut-être juum nañ peut-être xamuñ et cetera a am un peu de mansuétude jéem mais je ne défends pas l'impunité je ne dis pas que Sénégal dafa war boo xam ne chacun fait ce qu'il veut donc man ce professeur d'université là j'aimerais bien connaître son nom et son prénom mhm. et qu'on se rencontre su fekkee waa Régis le portrait qu'il fait de moi <laughs> moi ça d'accord je suis d'accord que vous ne soyez pas la triche et cetera non ñun on fait partie des <laughs> peut l'a pas dit comme ça peut-être il l'a mais il faut qu'ils comprennent mm-hmm. euh, en fait la vie c'est nuances de gris c'est pas noir ou blanc mm-hmm. nit euh, man moo tax ma rafet lu li kilifa gi wax mm-hmm. tu peux être très dur mais nit da ngay lépp application loi tout le temps da ngay xool da xool mais 64 000 jafe mais est-ce que je dis mayonnaise parce que je trouve

pour mu servir d'exemple bu ñeneen ñi xam ne. lii dañ koy traitement man man c'est ça que je mais mais je dis pas que war war nañ sanctionner. non sanctions je ne prône pas la, le laxisme. donc il faut qu'il se comprenne très bien ça. interpellé na man maa ngi koy parce que man parce que ni mu interpellé man doy euh, la man. non il parlait pas de Mbacke ah, Mbacke la man kilifa diine la. waaw man dama xam yërmaan parce que yàlla moo ma yërëm. rahma bien sûr ah, jërëjëf Mbacke. askan bi dañ leen war a yërëm ku leen jur da leen yërëm moom bu daloon si kawam dana sàkku ñuy am yërmaane si mhm. njabootam xëy na dellu si kawam ñi ko def xëy na dañoo juum parce que ñoom seen téléphone taaluñu ko man ñu nekk Kaolack laay wax te damaa gis man ba may jàng école sëñ Mourtala Al Azhar fa laa amee bac franco arabe ñun bu ñu daa dem bu ñu yóbbee suñu sàkk dañuy jël saak yi jox ko maanaam ki nga xam mooy professeur bi moo teg ko si wetu table ba même bu amee téléphone. Mhm. mais yow boo yoree si yor sa saak bu boo duggee rek na professeur jël saak bi tegal la ko fële xanaa bu ko tegee fa doo ko doo ko wan ginnaaw dem di ko di ko dindi. Mhm. te ñu bari ñu doon jàng ci yéen ñi boo masaa yóbbu sa saak enseignant dañ koy jël teg ko si kanamu. ah ci kanamu taawul professeur moom la daa def. lu tax amul bi yoon xaw ma. man fi may waxee en tant que kilifa diine en tant que waajur parce que samay doom ñu ngi jàng maris ak feneen parce que dama jàpp ni réew. xam-xam moo ko yore uh-huh. bañoon na ba sama programme 1 cinq 5 bi ma doon bi ma nekk candidat dama jiital xam-xam ci li nga xamante ni mooy sama programme uh-huh. defar nit nit boo koy defar dafa am si anam yoo koy defaree brusquement li ñu def wala li ñu bëgg a def bu ñu ko defee impact bi muy jur ci famille bi ci réew mi ëllëg ñoom peut-être nag wàllam na mais ndaw ñi nga xamante dañoo mel war a mel ni moom bu leen sanctionné duñ mel ni moom uh-huh. seeni waajur ñooy perte malheureusement bu leen mën a yërëm te du wàññi si réew mi dara du wàññi tamit si yi nga xam moom la war def dara ñu yërëm leen moo gën mhm. te loolu nee naa la woo naa ministre bi jotuma ko mais dinaa si wax ak premier ministre incha allah bu àggee Saint-Louis dinaa si wax ak président la république parce que ñu jéem a xool nan la ñuy def ñu jubal jubbanti waaye tamit ñu am yërmaane parce que loolu moo tax ñu baal leen si kanam. ñu jub jubal jubbanti. ba pare yërëm leen. l' affaire ba pare yërëm leen. non non mais Pape Sidi fois la question la vraie question c' pas la question du nombre encore une c'est pas la question ñuy baalaate la vraie question mooy que nañu nañu yaraat nañu conscientiser waat xale yi man pour man problème mu Sénégal yëpp foofu la. avec Aliou xale yi sonnatuñu xam xam nga Aliou xam nga Aliou wax na ko léegi Aliou wax na ko léegi peut-être ñun ni ñu doon jàngee sax moo gënoon metti que ñoom li ñuy jàngee léegi ñun ay recherche yi nga doon def ci ay livre nga ko doon defee papier. wala boog même booy def ci internet aussi lu tuuti la. mom mhm. nga doon def si internet. mais lu ëpp si sa jàng bi nga balaa ngay am bac mooy que ni ci ay livre nga doon sëgg di ci jàng mais xale yi defatuñ ko foo leen fekk ñu ngi ak seen téléphone. ma je me demande ban moment la ñuy am sax jotu maanaam sëgg si seen i cahier pour jàng seeni i leçons tout ce qu'ils font ils le font à travers le téléphone. il faut ñu conscientiser xale yi ni leen. il faut ñu essayer à moment de leur vie ñu débar ñu départir si seen téléphone yi man sama à la maison muy feneen ak feneen liggéeyukaay ba muy muy assemblée nationale lii lii objet bii nii il va falloir que sénégalais ñu sa bi sax te yëgoo ko non non lii moom il faut il faut que ñu jéem a xool nan lañ ciy départé parce que parce que question bi nii li ko andi lépp mu wër ko moom mooy téléphone problème bi téléphone la di moom moo tax ñu jël leen dàq leen lan moo tax ñu dàq leen leneen problème mu téléphone muy man muy ceddoo muy honorable mu muy Alioune ku nekk yaa ngi jël sa téléphone teg ko si sa si sa kanam pour jéem a xool nan nga ciy kii. kon encore une fois tant que tant que y a y a. l'histoire du permis de conduire sénégalais vous le connaissez. waaw ouais. mooy le reportage qu'avait fait. Euh, si si TV5 je pense xaw ma France 2. France sur TF1. Euh, TF1 Pape euh, Marie Faye sama rakk la nee na pour cette question. il faut transiger il y va de la crédibilité du bac sénégalais. à l'international et ça aussi c'est un aspect très important. nit ñi dañuy toll bitim réew parce que fi mu ne nii affaire bi boo ko traité mu mu xam nga kii loolu justement loolu lay ñaawlu le traitement de l'information parce que a été traité c'est une bombe mais nag quand même euh, yàlla baccalauréat sénégalais te moom la nit ñi bi génnee di dem bitim réew est-ce que da ngay génn ñu naan la yéen seen bag bi dégg naa mooy loolu aussi boo yi tamit il faut mooy kii li kii wax yar bi mooy citoyen sénégalais bu ne âge ba mu tollool am na yar bu mu tollool am na yar mm. bu mu méngool mm-hmm. mais boo gisee ñu ne ku am 18 ans mën na voter c'est un citoyen à part entière xam na yoon parce que bu def mais c'est des gens yoo xam ne bu ñu defee lu dul yoon dañ leen di tëj de bés mm-hmm. et cetera mm. donc kooku boo ko yóbboo à ce niveau bu mu nekk rek pour des raisons électorales électoralistes mais na xam les responsabilités du citoyen encore une fois moom laa doon léegi ci clinique day bi citoyenneté problème la ci réew mi mais mbedd mi mbeddum buur la nga ñëw di toj man la Pape di waroo toj nga ne ma eh jóge fi mbeddum mbeddum buur la suba buur fekk la fi nga taxaw di jaay mënu la jóg fi nga ne buur dafa soxor mbeddu buur la ça quand ça t'arrange bu buur ne la abal ma ko nga ne ko da ngaa soxor parce que ça ne t'arrange il faudrait que aussi nit ñi xam li ñu bëgg parce que finalement Euh, li li honorable wax rek day mujj ci ay slogan rek ñu naan jub jubal jubbanti ba yàgg dañ koy taasu ji ah. parce que xam nga boo bongomaan yi dañu soxor mhm. dañuy jékki-jékki génnee fi taasu boo xam dootul am benn sens mhm. il faudrait que sénégalais yi xam ne bu fekkee da nga changer de régime ñu indil la ñu ne projet lañ la indil indil la ay changement de paradigme dañ lay indil ay éléments de langage yu bees ne la réew mi fii lañu ko fekk fii lañ ko bëgg a yóbbu voilà l' importance sax d' de la déclaration de politique générale. on va en parler donc quelques instants moo tax il faut foog ñu wax ak nit ñi tamit wax leen lu leer Pape bi waaw ndax euh, loolu la ñuy la ñuy la ñuy waxtaane honorable député Cheikh Abdou honorable euh, député euh, Mame Gueye Diop Seck parce que elle tient à son sek <laughs> oui quand même faut lui dire Seydina Alioune Ndiaye économiste Thiedo Mouride c'est-à-dire chroniqueur ici à la 2STV. <laughs> tey ñun ñëpp ñu ngi dégg. déclaration de politique général déclaration de politique général déclaration de politique général kan mooy yëkkati loxoom ci yéen expliquer ñu lan mooy déclaration de politique générale baal ñu rek baaxee ñu ko ngir mu leer ci ñun. <laughs> ña koy def lu. honorable honorable honorable laa jox yow xam naa. joxal ko jox ko moo njëkk waaw. joxal honorable xam nga déclaration politique générale. waaw luy loolu. mooy bu fekkente nii tey constitution bi nga xam ne moo ñu tënk moo ko digle. waaye bu njëkk am na si ñu ko daan def ñoo xamante ni constitution bi amutoon mooy wane maanaam affaire transparence lay wane ci kun dénk loolu la dénk nga am yéene maanaam wax ak réew ma la dénk fa nga bëgg a jëmee lan la dénk pendant li at yi la fal. Hmm. loolu mooy déclaration politique générale. maanaam wax li nga. li nga dénk yow bi ñu la dénkee da ngay wax fi nga fekk réew mi ak fa nga bëgg a yóbbu réew mi ci juróomi at yi nga xam ne moom la la dénk réew mi. constitution bi nag article cinquante cinq nag daal ni léegi nag boo koy def am na foo ko war defee muy fii ñu di ko xaar boo si duggee mu yoon ñu bëri guddi continuer si question bi ñu mën see gën a yaatu hmm. waaye loolu mooy déclaration politique générale mooy koo xamante ne dañ laa dénk mbir ña la ko dénk nga war a jàkkaaloo ña leen représenté pour wax ak ñoom fa nga bëgg leen a jëmee parce que ay nit nag boo leen jiitee da nga am foo leen war a jëmee maanaam fa war a jëmee nag fa la war a Ousmane Sonko waaw mi jiite gouvernement bi. dafa war a dem ca assemblée national mm-hmm. wax leen ne dinañ def nangam ci mbay mi. Mm-hmm. nangam ci liggéeyu ndaw yi. Mm-hmm. nangam nangam ba mu yegg. ça c'est l'article 55 de notre constitution qui le dit. ok le premier ministre.